Dakar Kédougou arbitre sifflé na deuxième combat Total bu Joal 76 kilos Dakar ak Mbaye bu Palmarin Mbaye Diop Palmarin moom mooy Dakar Kédougou Dakar waaye maa ngi seen nga daal prise na ko nga xam ni yàqalul dara monsieur le maire Mouhamadou Mansour ma nga ne la toog den ak sama xarit Guèye. maam Seex Badiane barki démb ba léegi maam moom Seex sant bi. ndeysaan l'expérience de Mbaye Diop donnant du titre. ndeysaan waaye nag xaritu président de CNG la bu Alaaji Masou Guèye. waaye Alaaji ma Alaaji Demba ah. wax naa ni bu naan asamaan si leer la booba jant bi moo génnagul. loolu mooy lam Khadim Mbengue mi jàppale Maxu Mbengue te bokk ak moom ba kër ma ñëwee ngeen lool Khadim Mbengue mi bari ma ci deer bi la jur bokk sama xarit bi nga xam ne moo wuti woon gouverneur mi ngi nii di pendaan kon bu leen ko faati mooy maamam ndeysaan waaye maa ngi jëm ci baama ndeysaan di waajur Mbengue tukulóor yi di bu doxee wut si ma tubarkaala sama yaram lay ah. daw xam nga lu ma Bakary Coumba Ndiaye gànna nooyi. Yacine Boore Khoudiaro ma njëkk a. totalement duñ la génne war saako Ndiaye sàmm la bëgg. dama Fatim la ñu woy sa maam. la la dogal. Bakary Coumba Ndiaye Bakary la ñu woy sa baay. waaye nag Mbaye Ndiaye. dafa ne Moussa la maire mi ngi dugg si léegi. ànd la Lamine Seck yi. waaye Diop sol na ko naax bële ko ko ci kaw honorable bu mag boobu. Mbaye Ndiaye mi ngi daan na ko Dakar 1 Kédougou 1